te yàlla la nga takk bopp bu metti lépp luy laal bopp xobu ngigis xobu njàndam wala xobu ngolloñ mooy la ximeña americana moo si gën a gaaw kii daal nee na moom am sojo ko sonoon soj tol ngeer ngeer ngay wut boole ko tuuta xobu mbal mbal ak ngeer ngay boole nga bël si loxo ba mu fees baxal ko si litre ndox di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añee boo reer da ngay ngigis di ko suuroo si kàttan yàlla day dina ci nekkoon si bakkan yi ñu ngi nuyu ñi nga xam ñu ngi ziar ñu ngi suivre depuis YouTube maa ngi gis vraiment que ne forum bi gars yi commencé nañ ñu leen di rappeler yi Samba euh, Serigne da ngeen di dugg Play Store ngeen téléchargé application yi bind suma tur Serigne Samba Ndiaye gis application yi téléchargé ko maa ngi commencé di émettre aussi si TikTok TikTok maa ngi fay def ay yu gàtt yoo xam ne dama koy maye. di leen si bàyyi xel TikTok bu ko téléchargé wala ngeen recherche ko sëñ Samba Dia di leen gis incha allahu rabbi danaa fa may ay recette muy si wàllu ñaan muy si wàllu saafa yu gàtt lay doon nag ay quinze secondes lay doon bis ma ne naa may benn ngeen bàyyi si xel laaj bi si topp ci nee na hémorroïde moo ko sonal externe bu génn bi wutal sungufu nepp nepp nga jaasoo karité di ko def suppositoire anal ki si topp nee na hypertension hypertension moom bu la del def jël benn doomu laaj nga gratter ko def ko suppositoire anal di ko dugal sa ginnaaw moom lu sa tension yéeg-yéeg boo jëlee laaj dugal sa ginnaaw si saa si tension day wàcc su ko defee booy tëdd nga jël ñetti doomi laaj nga feer ko ba mu sew xooj ko si gannaaw kaasu ndox bàyyi mu si kàttanu yàlla di nga tàbb kii nee na jabet a ko juróom-ñaari xobu laurier laurier moom su ko su mënta wàcc leneen du ko wàcce juróom-ñaari xobu laurier ngay baxal si liisam ndox su baxee cinq minutes nga segg ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndékkee boo añee boore si kàttanu yàlla kii moom nee na am njaay dafa yor place di jaay bëgg lu njarte saa yoo xëy jàngal fanweeri basmala ak ñett fanweeri basmala ak ñett nga ëf si ndox wis ko si jaay bi si kàttanu yàlla njaay mi du taxaw kii lu ko aar la bëgg 19 basmala mu amul lu ko boo xëytee suba ba julli jàngal 19 basmala bu pare nga teg sa 11 bi kàllimaati laahi taamaati min shay maa xalaka onze bi kàllimaati laahi taamaati min shay maa xalaka boo ko waxee ñetti yoon si kàttanu yàlla. ginnaaw fukki basmala ak juróom-ñeent dara du mën si yow dara aar ubbeeku bi joxew naa fi sept cent soixante dix sept basmala mais da ngay def sept def soixante dix def sept cent muy sept cent soixante dix sept boo xëcc da ko def si benn jotaay douze mille yi baax na boo gisee ko ne si njaxaare nga jàng ko douze mille fois yàlla mën na ko teggil jafe-jafe yooyu loolu lu lu wér wér la ki nga xam ne nag moom nee na daal estomac moo ko estomac ngir seet wutal xasum guy guy muy la na ba guy moom la baobab muy ladan soña digitata ladan soña digitata wutal xas ni nga weer ko ba mu wow nga wal mu nekk sunguf saa yoo lekkee tibal genn wàllu kudd mu ndaw nga def ko si kaas def ndox bu tàng ba mu digg nga yëngal bàyyi ba mu tey nga segg ko naan ndox bi tuur sunguf si kàttanu yàlla boo ko di nga am loolu moom lu wér wér wér si wàllu da ngeen di bañ a fàtte jinjeer ak lem boo jëlee jinjeer sa loxo ba mu fees nga dëbb ko déposé un litre d'eau bàyyi def ko jus saa yoo nga xelli demi verre def naan si kàttanu yàlla bu doon góom la da koy soo koy def sax li gën nga koy def avant ngay lekk soo paree na nga defar guy boobu nga teg ko si lekk gi si kàttanu yàlla da ngay xëy dootu yëg daal digal naa ko ñu bëri xam demoon nañ daawuñu woor ndax ulcère léegi ñu ngi woor nañ neex loolu lu mat a bàyyi xel la ñu ngi leen tàggu fi ñu ñëwaat yéen léegi léegi léegi mais en version française jërëjëf. ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaan yàlla doole dal si réew mi ñu ngi ñaan yàlla doole dal doole xewal doole naataange aar leen aar seen njaboot donc moo tax ñuy ñaan toujours mucc ak mucc le ndax mucc baax na waaye boole ko mucc le moo nga ndax soo muccee te sa njaboot mucc ñu. Euh, dafay doy donc ñu leen di tàggu fii di ñaan nag yàlla dolli tawféex ak réew mi eh, si réew mi dolli jàmm dolli naataange may leen gudd fan aar leen aar seen njaboot loolu ñu koy ñaanal ñëpp bépp Sénégal ak fu mën a nekk muy si réew mi ak si bitim réew jërëjëf ñu leen di ñaanal bu baax a baax a baax yàlla na yàlla aar yàlla na yàlla taxaw yàlla na yàlla may yàlla na yàlla may wér yàlla na yàlla may wér voilà ñu ngi jéem a tàggu yéen fii ñu ngi jéem a